Bienvenue sur ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaaw ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaaw ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur ay maqaama yalaw ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur ay maqaama yalaw bismillahi rahmaani rahim man jaa bil xasanati falahu xasru amsaliha dama leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu nuyu sell nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi siifu Muhammad nekk ci àdduna bi lu mu sori sori ak lu mu jege di la jox sa wàcce waaye di leen nuyu nuyu sell di la wax bismillah

Euh, ku yabu bàyyi ko xel te gaa yi di ko moytu ma bëggoon nga dellu si waatal ma ci tuuti indi laatal ma ci ñu door a xuus ci biir waxtaan bi waaw alhamdulilah xam nga mbiru Ousmane Sonko mhm. ak turu yaayam ñoo xoolee xam bidiw mhm. nga xam ne kii bidiw la boo xam ne bidiw lay yéeg waaye bidiwam du coow gën a am mhm. coow li muy gën di bari ci Sonko Sonko di gën a yéeg lu coow di gën a am Sonko di gën a yéeg lu coow di gën a am Sonko di gën a yéeg daa ñoom seen bidiw loolu la te turu Sonko Sonko mënut a te coow du bari te turu Sonko boo xaadatee mm-hmm. ak turu yaayam mm-hmm. ak turu Sénégal mm-hmm. boo ko boolee te nga taal sam am bu garaaw bu mu la génneel loolu mais turu Sonko boo ko boolee ak turu Sénégal ak turu yaayam di xarit boo ko xaadatee lay jox nga xam ne kon kii am na lu nekk ci moom loo xam ne dégg la yàlla la taxis loolu la Ousmane Sonko am dafa am loo xam ne am na ñoo xam seen mbir. Mhm. faaw coow lu mag am ñu soog a am. li ñu bëgg soog a mën a nekk. Mhm. boobu si loolu am mbir boobu dafa la ci Ousmane Sonko nañ ko bàyyi ndax dafa am nekk ci moom. mooy mhm. xam naa ko nit ki. war ngaa xam kii mooy kan da ngay xam Ousmane Sonko ak turu yaayam xadat ko wàccee ko. di nga xam ne Ousmane Sonko nii bokkute nii am na lu ko yàlla may. dëgg la ndax am na bopp loolu macha allah. loolu rek moo taxoon ma wax loolu. macha allah mu doon lu am solo fi ne wax nga ci loo xam ne xam naa ne boo paree sëriñ si bëri dinañ la pirate ndax bëri waan na luñ bëggoon a xam ci moom te xamuñu euh, euh, kër Sonko ma gis la gars yu bëri xëy na xamuñu la wala xàmmewuñu la ndax na nga def ba dugg fii te man gis naa la te xam naa ni xàmme xam ngi mën a xam moo tax xam naa ni ma xàmmee la mais sëñ bi lu waraloon dem gi nga dem noonu kër Sonko ak ni homme de tenue wane këram yow nga fexe ba dugg biir kër Ousmane Sonko te gars yi téyewuñ la waaw alhamdulilah rabbil alamin xam nga nit ki moom bu dee sëriñ nga. de mhm. ça dafa war a njëkkee ci yow. surtout ndax ñun euh, moom. Mhm. ki ñu mooy ki nga xam ne bëgg naa jël réew mi a mhm. ki ñu àndal mooy ki jub. ki ñu àndal mooy ki nga xamee ne fii laa ko koo yóbbu. par exemple ak Sall jàmbaar def na li mu a def matale day jox keneen. Ousmane Sonko ndaw la génération la am na ambition. xam na àdduna. te bëgg na jël réew mi yóbbu ko feneen boo xam ne fii kii fii fii kii bàyyi. Mm-hmm. fi ko Macky Sall mu yóbbu yóbbu ko feneen loolu rek moo tax ñu ànd ak moom loolu rek moo tax. amaa nag yenn yi ci biir yëpp duñ ci mm-hmm. ndax euh, dem baat yooyu yëpp duñ ko mën a wax ci télé mais alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. mais nag euh, dañu sant yàlla ci ci ci ci loolu parce que gis naa sax après ay ñu naan arrêté nañ ci sëriñ nangam ñaas nangam nangam. <laughs> ma koy dégg. mais nit euh, damay wax ne man. commandal man koo xam ne maa moo doon jël décision bu politique. Mm-hmm. man moo politique sax. dëgg la te am na seq ak mm-hmm. nag. bu la mooy politique man. Mm-hmm. man nag ku ma ne laay doon na xam naa politique. dëgg la mais politique bu ma mais nag am na mag ñu politique man kii bëgg jël am ci moom yaakaar ma danaa la moom. man comme ku jël am la mhm. moo tax ma def lu bari loo xam ne ci lu mel noonu daal waaw ah, moo tax ah, solo ndax nee naa keroog man moom dama ne woon moom fi mu ne fii toog bu ma jàkkaarloog yow laaj la ba lu tax war war moom kenn mënu ma ci woon wax lu ma doy lu dul lii ma jàkkaarloog yow nga wax ma ko mu doon loo xam ne lu am solo loolu macha allah rabbi mais mu mel ni tam fi mu ne ñoom it fi mu ne sëñ bi wax déggaat nañ Sonko naka nga gisee tamit tëggulu bool yi nga xam ne kubéeru ci ni nga xam ne mi ko doon tëggulu tey jii waaw xam nga loolu tëju gàllaaj bool. Mhm. li tëj gàllaaj moom ñaari couverture moo tëj gàllaaj. ok te mbooloo mépp Sénégal yëpp ñaari bool lañ jël ak couvert bool di ko tëkk. Mhm. mais Ousmane Sonko ñaari couvert bool la yor moom ñaari couvert bool. Mhm. la yor. te ñaari couvert bool yooyu moo tëj gàllaaj moo tëj gàllaaj. loolu boo ko defee ku ku nguur nguur. wala buur. wala boo xam dafay nekk te di di yaay dool nit ñi. boo ko defee gàllaajam tëj. te Macky Sall le 29 bii. Mm-hmm. bii jëm. Mm-hmm. le 29 bii nii nii nii nii. Mm-hmm. manifestation bii. Macky bi doom day wàcc. dafa le 29 <laughs> mm. Macky Sall du mën a yëngal su du ko a def. est-ce que le 29 bii ñu du mën a bousee mais a yëngal du génn sax mën naa bañ génn sax këram. sëñ bi bi bi du Macky Sall lay wàcc bi du Sonko mooy yéeg. te bis mu tombé nañ ko xool. ko doy war de. àllarba àllarba la tombé àllarba bisu àllarba bii di di mel ne bi. Mhm. soo ko xoolee ci wàllu bàttin. am na fu muy taxaw ci rabixa boo xam ne baaxul ci mag sàll. loolu mbiru bàttin la. Mhm. te lëbënd bi li may ñaan mag sàll na dal wax ñun ñëpp ñu dal. dal gi mooy ñu jiite wàllum takk dere yooyu nañ dal. Mhm. ndax bu ñu fi benn. raj rajloo rek nañ bàyyi ñi rajloo raj rajloo mm-hmm. ñiy liggéey di liggéey ñiy wax di wax ñiy retaan di retaan mais kay liggéey ak kay fay ko weer mun nga bokk mukk li may ñaan rek mooy nañ ñëpp am jàmm mm-hmm. réew mi jàmm daal la ñu fi ñaan mais li ma koy ñaan man en tant que citoyen mm-hmm. en tant que kilifa diine en tant que sëtu Sëriñ Tuuba mooy bu leven neufee na wax ñëpp nañ dal surtout ndax yaakaar naa booy manifestation day encadré normal yóbbu leen encadré leen. bu ñu mm-hmm. mais bu fekkee sax yow da ci am. Mm-hmm. baaxut ndax maanaam tawat yoo xam ne mën na ko ca daal. loolu day président. Mm-hmm. loolu nag dañ koy ñaanal yàlla li ñu koy ñaan mu daal. parce que bis bi la àllarba la. àllarba na borom xam-xam bi yëpp nañ sukkandiku àllarba yi nawet na bii soog ko woote nañ xool bisu àllarba bi ñu woote. borom xam-xam yi ko. borom xam-xam yi nga xamee ne nag dañuy yàq dañ ko bàyyi di bëgg a jaxase réew mi mm-hmm. loolu dañ ko bàyyi kilifa yi mm-hmm. yi nga xamee ne dina bëgg jaxase réew mi mm-hmm. dañ ko bàyyi ndax am réew kenn du ko jaxase ndax bu ko jaxasee képp jaxasoo diine exemple duñu lay firndeel wa taxu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaasatan ay ñaan ci bopp borom kon dañ ñaan ñëw jàmm Macky Sall mi fi na fi nekk boo am jotee mu dem Sonko am ne droit manifester am na droit damay bokk ci élection yi. Mhm. am na droit damay posé candidat. dëgg la ndax sénégalais la ñëpp di sénégalais. Mhm. te doo jékki-jékki rek ku tudd ko Abdou Diop du diggante damay damay président de na droit damay nekk damay nekk président. Mhm. am na droit damay manifester am na damay def nangam. mais loolu nag boo damay tax njiitu mi nga xam moo jiite. ñëpp moo si président de la République. ko jàmm. allahumma amiin ko sutura. defal ko soxnaam ndax ku baax la. Mm-hmm. defal ko mboolem koo xam ne mu ngi gouvernement bi daal defal leen jàmm. Mm-hmm. dalal leen dalal leen nañ dal. Mm-hmm. ndax ak dal kat mooy lépp. dëgg la sama ja. daal wax ne. ak dal. nañ jokk dal seen sir Muxtaar. wallaahi ndeysaan yàlla tas ci baax. kooku lay teggin. adduna bii. muy Macky Sall muy Sonko muy ko fa bëgg a toog muy kaneen kaneen. ba ci muy Karim ba nekk Qatar te gars yi bàyyiwul ko xel. ku amut ak yar mhm. doo yor dara ku amut ay teggin mhm. doo tekki dara dañu ànd ak yar mhm. ànd ak teggin ànd ak dal loolu laa xawaare yi wallaay ndeysaan <laughs> macha allah sëriñ Cheikh Bara Diagne am na solo loolu te wax dëgg yàlla ku dégg kàddu gi nga wax ci xam ni wax nga kàddu kilifa ndax bër gi dem ne damay waxtaan sama benn kilifa mu ne ma man de ma doon ma mën a mu ne may ñaan Macky Sall mooy na moom cër bi mu am yàlla jox na ko ba noppi kon bëriwaa na loo xam ne bu ko ak njabootam bëggee moom war naa dellu ginnaaw bàyyi ak njabootam ñu def loolu la ñu bëgg a def kon te loolu daf mel loolu mooy kàddu yi dëgg ndax euh, kilifa moom du xëccoo ak njabootam macha allah rabbi solo sëñ Cheikh foofu du ma fa bàyyi waaye damaa bëgg ñu li nga xamante ni mooy wàllu néew kattan sëñ bi mi ngi lëmb réew mi ndax fi mu toll nii téeméeri xale yu góor yoo gis ñuy dox fukk ñu ñoo cooy góor ña ci des ñëpp góor lu waral loolu ak yow tey jii lan nga leen a dimbali ndax xam naa ne am nga ci ay secret yu mucc ayib yoo xam ne waa bitim réew ñoo ko wax. da nga maa ndax kon daanaka da waaye li mënta ñàkk ndax lii tam daa bokk ci réew mi sëñ bi gars dama néew xale mu góor boo xam ne sëñ bi amagoo ñeent fukki at bëgg néew kattan te moom wax nga ma mais xanaa wax ci rek nee na da nga maa woo ñëw ñu waxtaan si dinañ na fi ndeysaan mooy mooy pod yi mu ngi nii wàllum gàttal la. Mhm. moo ko tax a jóg. bio gana. waaw bio gana bi. Mhm. waaw moom wàllum gàttal la moo ko tax a jóg moom moo ko tax a jóg moom wàllum gàttal la. Mhm. soo xam ne sa gàttal dafa néew. wala du dëgër. wala sa man yu li muy génne lu bari yu mel noonu. wala kuy gaaw a jot boppam. waaw yaa ngi jóg. wala sa soxna yu bànneex mi loolu lay am. ndax lépp bu fekkente wàllu ndam la ndax duñ jékki-jékki jox la ko. dëgg la. man ngaa néew kàttan fekk da nga am rab. man ngaa néew kàttan fekk dañ laa takk xalaat. man ngaa néew kàttan fekk dañ laa liggéey jabar. dëgg ay kàttan fekk na lu bari lu bari mën na ko waral cat da koy waral sax cat <laughs> mais lu mu ci mën a doon wala sa kàttan yi dafa ndaw am na ñoom suñu parce que ndaw mën na xale léegi <laughs> mhm. bu dee dafa ndaw tamit am na lu la jox loo xam ne da koy xëcc da koy génnee mhm. xam ne yàlla si jàmm ci kàttan yàlla ndax yaa xam yu yaa matinu mhm. wala xale ko seen xadirum yàlla moom kàttan gi moo koy wax waaye nag kàttan gi nag secret bu wér la waaw dañ koo mooñee ko am nu mooñee loo xam ne ñu rëdd si écran bi ndax du fa xeet mhm. buñ ko mooñee bu ko ni ko ba utilisé wala ko utilisé moom alhamdulilah de baax jox la kàttan moom mhm. loolu a gaaw na xam naa tey moom <laughs> telkal la euh, sëñ xam nga xam nga li tax may ni lii mooy dafa bokk ci réew mi ndax bu fi bu réew boo xam ne buñu naan fi ne daanaka yaakaaru yaakaaru am réew mooy ndaw ñi tey bu ñu demee ba ndaw ñu bëgg a tàmbalee ñoom ñu bëgg néew kattan moo tax kon dafa bokk ci réew mi waaye moo tax ma waxtaane waale ko fi ne nag mëntoon na ñàkk bokk na ñu ngi gis wax dëgg yàlla euh, tudd nga ko léegi muy jigéen boo xam ne du yëg loolu lan moo koy waral fi mu toll nii waaw lu jàpp jigéen gi mën na am rab mm-hmm. waa ji am wala waa ji am rab mm-hmm. wala ko jigéen gi am na ci ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne bu ñu seeg seen jëkkër bu ñu paree dañu soxna mm-hmm. loolu da koy waral am na ñoo xam ne seen mbir rek xat xam ne jigéen ñoo xam dañu leen a liggéey. Mm-hmm. dañuy bànneexee. ci ëpp nag jigéen ñu bànneex li li ci ëpp ñi lay doon ndax seen góor gi day am rab. Mm-hmm. rab moo xam ne bu ñu tëddee si. boo boo boo fekkante na àgg na rek. Mm-hmm. dañuy day sonn man day dañ koy yemagul. waaw te sëy du xeex. sëy bànneex la. am na ñoo xam ne seen bu sëy mel ne en face yàlla mel ni gën. du loolu sëy bànneex la dal na ak tekk la. ki nga bëgg la parce que mawadda ak rahma da ngay bëgg nit ki ak sopp ko mahabba ba pare rahma nga yërmaat nga am yërmande ci moom kon mooy kooku mën nga ko sopp mais nit ki bu fekkee da nga ko da nga ko takk amoo dëggoo ko lool lool bëgg dafa am ay bëgg mën naa dem ba ay jamono bu tey mhm. mais mawadda ak rahma rahma moom du lañ rahma mooy yërmande gi yërmande moom du ma deñ mhm. ndax yàlla bu bund yëpp da damaa bëri yërmande ina rahmatullahi xayatun minal muhsinina mhm. suñu borom subhanahu wa taala mooy dafa bëri yërmande kon jigéen ñi nga xamante duñu ëpp def lu mën lu mel noonu daal moo koy waral di waral waaw mais loolu bu ko waralee moom loolu dañuy faral di ñoom ci boppam dañuy faral di xul ilaya ina mhm. am na ko istama ndax mel ne jinni ba ci setetal gi wala ko juróom-ñaar xobli moom nga mhm. bind xaw xobli wala nga bind juróom-ñaar loolu lépp ko di ko sangoo yëpp jigéen joo xam def loolu rek moom dina daj ci kàttanu yàlla ci wàllum loo xam ne jigéen joo xam ne jël boppam ak yu mel noonu ñuy bànneex la ci loolu borom bari mhm. mais nag di ko xool lu baax la di ko seet xam lan la. waaw macha allah li tax ma indi question bi dafa am sama benn jigéen bu ma woo téléphone ne man daal fi ne damaa am problème boo xam ne maag sama borom kër ne ko lu ko waral mu ma mënu ma satisfaire ma ne benn bi lay defal sax dafay gaaw loolu te bu paree rek du moyu na tëdd na na ci man du ma jot sama bopp. waaw xam nga sëy nag minimum góor war naa mën a c'est cinquante mille. waaw de. góor war naa mën a c'est cinquante sëñ bi yi mënatuñ juróomi minute waaw loolu moom moom yàlla nga faj ci naa ko war wër moom war naa mën a cinquante minutes mag ñi dañ daan dem ba am la si waaw waaye man ngaa mën a sëy lool te doo doom man ngaa mën a sëy mën a sëy doom man ngaa mën a sëy lool te doom doom gis ko xam ne mënul sëy. Mhm. jigéen bi satisfaire mais mi ngi am doom. Mhm. xam nga li ñuy <laughs> loolu de kéemtaan fii la moom. waaw tax yàlla daal lu ko neex mu def. mais mhm. gannaaw kéemtaan dafa yabar ay ay ay meññet. wàccee ñu alxuraan. dañu ci ay secret. ci wàllum baatin. wan ci wàllum pratique mystique. lépp ñu def ko ci xel doomu aadama. moo tax ma ne gannaaw def ko nag. lu ma ñëw naan naan leen nii ñu koy defee nii ñu koy defee. moo tax ginnaaw wax naa leen ko rek yéen yéen doomu aadama mhm. li war a soppi ngeen ko yéen yàlla ko wax ci alxuraan inna laaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim bi ma leen soppi yéen xool a soppi ngeen soppi ko mhm. alors bu dee ku mel noonu tey ñu ñun suñu Cheikh bu dee koo xam ne saakaram dafa ndaw mhm. am na li ma liggéey ci ñaam bi su ma ko liggéeyee pare ci ba benn baat bi gën a gudd ci alxuraan muy laa fa na moo gën a gudd ci alxuraan ñu ma gudd affaire <laughs> sëñ bi baat bi nga wax est-ce xam nañ ko fi mu toll euh, xam na suñu xel mi xaalis bi. dina am yoo xam ne ñu ko xam. wax kii mais. toog naa ci lu ma téeméeri sëriñ waaye li nga wax ni bëri na ñu ko dul wax ñu ko dul wax. wallaahi yaa aska aqli am ma lay saxli fan moo gën a gudd ci alxuraan. Mm-hmm. baat boobu liggéey ci koo xam ne saa kanam dafa ndaw. moo tax ma loolu dafa bëri ay ay yoo xam ne mën na ko waral yu koy war a daal yu bëri xam ne la yoo xam ne mhm. dama koy leeral te nit ñi buñ dégg mhm. ndax boo yi duggee dëgg rek ci baatin da nga wax pare nit ñi xam ne nga wax te loolu bokk na ci ñàkk pédagogie si pédagogie dëgg yi nga wax ba pare nit ñi xam ne nga wax ndax xam sa jubluwaay daal mhm. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Bara Niane ci leeral bu solo boobu kon nag gars yi nga xam ne fi wax dëgg yàlla ñoom am nañu jafe-jafe daal ci wàllu ngóor ci lu ci mën a doon fexe leen ngeen ñëw jokkoo seeg sëñ Cheikh Bara wax dëgg yàlla njott naa ne ku ci ñëw fi mu ne bu soobee yàlla di la nga lay sama de sama borom dana ci def tawfeex ci kàttanam incha allahu rabbi taala sëñ Cheikh Bara beneen bi ma bëggoon ñu waxtaane waat ko a toog dégg la ma seet moom dama ko dama koo bàyyi yëfi xale <laughs> seet man ma ma gis indi naa nit koo xamante ni fukki at ak lu topp. la ko topp kenn xamut nu mu demee. nga def ay mbir seet seet seet ba kay wool ma ma nga wax ne ma indi ko mu ñëw nga ñëw nga jox ko ne ko am yi mu dalal sa jëmm dalal sa yaram dalal sa métti waaye li lay saafara di ngay génn réew mi dem ba Gàmbi wax ko turu ka dem gis seeti ji te yow ka muy dem seeti ji yow mosoo gisal feeg moom. léegi loolu sëñ loolu ban xeeti seet la. loolu biir fàttali la <laughs> te wallaahi naa si mi di ñaaj yàlla. ak yonent bi mhm. ak El Hadj Malick ak sëñ Touba ak Maam Laaw Ngaay. nii lañ ma ko nekk di. ma ngi nuyu bu baax. ba tey xaw ma ko kilifa bi rek. daa ah, damaa tëdd guddi ñëwoon ma ko noonu. man kay maa la yónnee ay photo waaw ndax ndax bi ma jëkk di nekk Allemagne la nekk sama. Allemagne la nekk Allemagne waaw. nit ñi lay yóbbante nuyoo léegi bi may ñëw. waaw boo paree woo ko ndax namm na la loolu nee na. <laughs> ñaaw naa ko mais faaw mu dem ci kilifa bi nangam ak nangam ni ñu ma koy jigéen noonu la ko waxee. wallaahi lazim te am na ci photo bu ma yónnee kooku toog ci paa bi toog ci yónnee bu sàkk kii sàkkee sàkket bi noonu laa gisee. image sama téléphone ba tey. waaw loolu moo tax daal euh, dafa am loo xam ne wallaahu yamtasu bi rahmatihi hmm. man yasaa wala suuf benn axeem yàlla mooy xool lu ko soog mu def ci doomu aadama. yàlla dañ xool lu ko li nga laaj daal daa def mbirubaatil la loo xam ne mënoo ko leer laaj ci écran mbirubaatil la ci dara ma ne ci gàttal dañ ko sant yàlla alhamdulilah waaw dañ ko sant yàlla ndax dañ ko sant yàlla ndax ñaan moom noonu la mm-hmm. gaa yàlla yi dañoo bari mm-hmm. gaa yàlla yi ba tey ñu ngi fi wallaahi te gaa gaa yàlla yi ba tey ñu ngi fi mm-hmm. waaw lu baax ba ngay am ba nga daan am ba tey lu baax ki am dëgg lu baax nga daan am ba tey lu baax nga am am na ci fii ci àdduna ñoo xam ne tey luñ bëgg mu am ci àdduna tey fii te mooy gisee loolu nga foogee am na fii ci àdduna tey hmm. loolu mën ci àdduna tey hmm. fii ñoo xam ne bu ñu newoon nga diw fal président hmm. diw dee fal président kenn mënu ci na ci fii ci àdduna na nit kooku mën naa wala jinne jinne na ci fii loo xam ne bu mag exemple laa la jox bu Macky Sall ci boppam wootee am Macky Sall day carte yi yëpp man ci boppam personnellement man naa bay sama jinne ñu soog carte yëpp est-ce que da ko jox ko ma neex fii ci Sénégal. loolu taasis la. teg mhm. la yàlla. moo tax nit ñu baax ba ñu mhm. nit ñu baax ba ñu ngi Sénégal. waaw Sénégal jàmm rek ma jàmm. li ñuy ñaan daal mooy. Mhm. mbirum mbirum yàlla. ñu gën koo xam. surtout ñu gën koo xam. ko xam bu baax ndax kilifa googu tamit ñu koy ñaanal kon laay soo gis fa toog. Ablaye Sow gis fa am ni nga waxee noonu daal. léegi sëñ bi ak xam boobu nga xam noonu ak li nga xam ne fi suñu borom ko def lan moo tax léegi nga di nga di seet moom fi mu toll daal fi mu ne du du dootul yi te sëñ ne bëri na ñoo xam ne ñu ngi toog bëgg nga seetal leen sëñ bi. xam nga seet loolu mm-hmm. seet. di seet di mm-hmm. seet. ak kii gis moom est-ce que nañ. ah déedéet <laughs> daa daa déedéet wax nga <laughs> ak ki nga ne moom day seet. day seet te mën naa bañ a gis li muy seet. seet di ci man ñi may seetloo sama xale ñoo ko seet. ñoo Ibrahima ñii sama xale xam ne ñoo ñu formé. Mm. ñoo xam ne ñëpp mën nañu ko dindi tey. day seet tey sañ dem. Mm. su su su ma soo ma jotee mu ne boole ñoom ñu liggéeyandoo. waaw waaw man roc mën nañu ko liggéeyandoo. Mm. kàttan mën nañu ko liggéeyandoo. maanaam sëñ Ba lu lay def am na liggéey mais liggéey yu am doole yi. Mm-hmm. yoo xam ne gis naa ne ñii dafa métti na ci ma jël engagement di liggéey loolu. Mm-hmm. mais wàllum ay seet ak sama jabar dafa ay sama de kàddu dafa néew rek secret yi moom yëpp ñoom jàngal naa leen ko équipe bi mën nañ ci ñu ci waat ñu ci kër gi. ndeysaan ñu ay mhm. borom baax lañu macha allah ñu ngi nuyu ñoom ñëpp. waaw ñoom Ibrahima ak sëñ Mame Balla. ndeysaan si moom Xaadim Mbàkke moom. Mhm. am na am na ñu ñoo xam ne mhm. euh, yoo xam ne daal noonu la daal yoo xam ne li tax mën a seet noonu lu mel noonu daal moo tax ñu wax <laughs> am na solo wax nga dëgg wax dëgg yàlla ndax kuy seet ak kuy gis moom bokkul te wax dëgg yàlla lii nga xam ne defal nga ko sama soxna soosu noonu wax dëgg euh, ko yàlla su ko defee moom it ñoo ngi ciy nuyuwaale borom bu baax a baax waaye borom këram moom gëmul gannaaw bi mu gëmee yàlla ak yonent bi ak maanaam ni ko sëriñ di wax mu gëm ko ci àdduna non ci yow la koy dégg waaw wax na ma ko non man man xam naa ko ndax sama mag bu ma bëgg dem ku nekk Amérique. Mhm. bu ma wooyee wax ma ne ma dafa feebar. Mhm. yaa ngi ko 30 ans nga toog feebar. waaw 30 ans feebar. mu ne ma ci ay sarax. Mhm. ak li ma def lépp mënu maa xam ñaata ñaata la ci xaalis. te Fapal kooku bi ma ko seetalee. gis ko bi ñaaj yàlla ak yeneen bi. benn sarax laa gis ci moom. xam nga muy sarax la. 18 sondeel. bi ma ko waxee xam nga ci li ma ko fajee. Mm-hmm. moom ci li ma ko fajee man. Mm-hmm. maa ngi koy ci tàndarma. d'accord xooxi tàndarma yii. Mm-hmm. di laa fajee aajo. ndax daan dox ci yaram bi. si dox ci am na dox ci yaram bi. bu doxee fii doxaat fii doxaat fii doxaat fii bëgg di faral yi. am ah, na ci lu xool nañ ko mënut a yaram. sëriñ si tamit ñu dem na ci ñoom. ma ne kon sëriñ si mën nañu mën a ñaan mais nit dox na jubal ci biir. xëy na yàlla moo leen jubóole woon. ndax ñëpp yàlla yi ñaan ndax yàlla moo ne adduuni astajib lakum ñaan ma may leen. kon ki la ñaanal gisoo jàppal ne yàlla na aajo daal nut fay ci yow. waaye man de sëñ Cheikh Bara damaa damaa ñaan sëñ Touba. Mm-hmm. ñaan ko El Hadj Malick ñaan ko Mame a Laye ñaan ko yëndu sansam ne ko. Mm-hmm. ñaan ko suñu borom. Mm-hmm. képp ko aajoom nut ta faju naa ñaan yàlla kooku moo woo téléphone ba jot ma. te ma teg xam naa ci dara. léeg-léeg <laughs> ma bëgg naa gis sax ma fukki at maa ngi wax baat bi ma koy wax. wallaahi ku bëgg du ma sama vidéo yëpp nga xool. Mm-hmm. fukki at maa ngi wax vidéo bii may wax. Mm-hmm. loolu damay koy sante yàlla. waa ji yónnee ma yu daw yaram yoo xam ne damaa mujj sax ma ne sax dama am dama am kersa. Mm-hmm. ndax xam ne nit. boo ko jàppalee da nga kontaan da ngay da ngay yéemu. nit boo ko jàppalee ba nga yéemu doo xam doo xam doo xam dëgg-dëgg affaire bi. dëgg la dëgg. kon. loolu da ngay sant yàlla. xam nga xam nga benn wax daal jëm jëm tool waaye jàppale nit daal. mooy lu mooy li gën rek. waaw daal loo xam ne day jàppale nit daal ñun dañuy jàppale nit te tout le façon day jàppale nit. waaw suñ daara moom. da ngay jàppale nit ñi ndax ma jàppale nit ñi sama xam-xam laa jàppale nit ñi. loolu rek la macha allah. jërëjëf sëñ Cheikh Bara Niane wax dëgg yàlla boo ko defee war na la boo ko defuli tamit war na la ndax buñ ne doomi soxna nga surtout sëñ Bara nga sëñ Baaraay sa maam kon sëñ Tuwaay sa maam kon wax dëgg a a dëgëral taxawaay bi macha allah rabbi mu mel ni itam ñu dellu si waat tuuti rek ci ci ci ci ji Sonko gaa yi ne nañ yow yaay sëriñu Sonko man leen wóoruma waaye daal xam naa ni moom waayu Sonko la est ce que ñoom la ñuy wax noonu fi mu toll nii fi mu ne mën nga ñu cee leeral tuuti. xam nga Ousmane Sonko nit ku baax la man damay ànd ak nit koo xam ne ma am yaakaar ci yow da nga nekk ku baax naa la yow. Hmm. bëgg dee wax naa ko benn waaye ne ko man ñi ma ñaanal ñu ci ëpp dégguñu olof. loolu ma xam naa ci dara. ñi ma ñaanal ñi ci ëpp du ñu sénégalais. xam naa ñi ma ñaanal ñi ci ëpp du ñu wax olof. bu leen di wax ak ñoom du ñu wax olof. français sax ñu ñu néew lañ ci <laughs> xam naa ci. anglais <laughs> di nga leen nuyu ci anglais ñu dégg la <laughs> ak arab. am greeting all people. yes. from Dubai. walaay ndeysaan. in Nigeria people. Mm-hmm. in Amaka people. Mm-hmm. all in. am mm-hmm. greeting. my mother and father and lot of things. ñu ngi nuyu ñëpp. lay ndeysaan sa euh, yaay yeeg sa papa yi ñëpp. Mm-hmm. bu baax sama benn xarit nag boo xam ne. Mm-hmm. Euh, la jëriñam mm-hmm. la. ndax akufu akufu mi ngi Qatar démb doon na moo ndeysaan. moom xarit tamit si ñëw na ndeysaan. ndeysaan macha <laughs> nga wax noonu. Euh, nit ku baax la. li Macky Sall nekk nit ku baax. man ba may xam Macky Sall mosuma toog ak Macky Sall. toog nii. gisee dama taxaw ma taxaw ñuy waxtaan. Nigeria la woon. Mhm. bi Mouhamadou Buhari ci boppam bu Nigeria. di jël Nigeria boobu Boun Diongue ak Njaañe. Mhm. waa CEDEAO ñëpp ñoo fa boobu. parce que Moussa Cissé Cissé Lo moo nekkoon ci waa CEDEAO moo nekkoon CEDEAO. CEDEAO mhm. boobu Nigeria la woon fekk. waxtaan nañ ñi mais mbooloo mi bare woon na. ñu fasante ko lële. xëy na mu mën na koo fàtte. soxnaam tamit ku baax la. te boobu xaw Sonko. nit nag du fàtte démb. déedéet. waaw bu ma fàtte dem. Mhm. ñoom ñëpp nit ñu baax lañ. dëgg la mais Sonko lañ seq ak li ñu seq toog loolu moom biir privé la. lépp <laughs> sëñ bi li ma seqal ñëpp mën ma nga dëgg. koo xam ne loolu seqal nit wax. Mhm. loolu seqal ñëpp mën ma wax. waaw ah, te te te wàllu li sax ma yewu ko. sëñ bi ak médecin ñooy am. Mhm. la moo tax la moo tax coupe d'Afrique bi jàll. bi jàll. man sama visa Cameroun. ñëw na fi ak yeneen ñaari sëriñ la ma la ma wax. ñu jël nga jël benn sëriñ coupe bi day ñëw ndax avant coupe d'Afrique bi laa tëdd guddi ñu ma loolu. Mhm. ma toogal Cheikh Mouhamadou Samba Diallo am na mu wax. ndeysaan Sañ Bambara. <laughs> wallaay ndeysaan. ma ne ka ma wax ka ma wax loolu waxtu turam. Mhm. ci fédération bi ma ne ko nag bu ñu saraxee nangam ci ay mesquines. Mhm. coupe bi dina ñëw Sénégal jël ñu ñëw benn sëriñ. bàkke alxuraan sama gisaa Cameroun ñoom ñoo ko wallaay la xase fii laa toog. waa DSM jékki-jékki ñëw fii. te bu fekk sama gàddi ñëw Ibrahima jox ko sama jox ko enveloppe. moo bi nekk Issa Cameroun. ma ne ñaan loo jar def. ma ne de man ñaan ki mhm. mhm. ki man laay gën a mën a ñaan ki jege man. ki sore ak man. moom laay gën a mën a ñaanal ki jege man. parce que réew mi man dinaa am ay dok yoo xam ne fan yi mm-hmm. dinaa ko jox ay ay lim mm-hmm. yoo xam ne réew mi jàmm rek ma fi am. alhamdulilah. dinaa ko fi joxe ci salaamun qawlan min rabbin rahiim. 6666. laa ko joxe laa ko déchiffré ak ñoom ñan danaa ko joxe. Mm-hmm. mais doo ah joxe naa kii bi noonu la. 6666. 6666. raison bu nekk laa pour koo xam ne moo fay def sa gudda ñu def ko balaa émission 6666 xam lu taxaw. Hmm. mooy laaj seen laaj bi. benn laaj bi mën naa wut at. léegi bu rafet 6666 salaam waxal ma Ibrahima. <laughs> wax dëgg yàlla kii waxuma la at. sax bi xam nga lan la. bu hmm. kenn ray dara. kenn du ray. est-ce que sax bi lan la. tàndar. 66 tàndar ma. 66. tàndar ma mën nañu ko def sax ay kilo bu ñu neexee. 66 kilos 66 xam lu taxaw. Hmm. allahu yàlla. wut 787 daal jarax. 787 daan la ci wax yóbbu ko ci daara yi. ñoo hmm. ko jox xale yi ñu ñëwaat di ko sol xam nga 787 xam nga mu jàpp. Hmm. bisimilah rahmaani rahim. waaw waaw. wut 92 92 ay saaku ceeb raison bu ne ñu fa def ay saaku ceeb 92 xam nga mu jàpp. Hmm. Mouhamed. waaleykum salaam. réew mi lu du jàmm di am. ay côté boo yàlla bëggee bàyyi mag sàll fi bàyyi mag sàll. mu nekk ba dayal dem. nekk bu daan waxin la mais kuy liggéey nañ ko bàyyi mu liggéey mm-hmm. bu fi yàlla bëgg jël Macky Sall teg fi Sonko mm-hmm. da nga xam ne Sonko fi yàlla teg koo xam ne mm-hmm. dama ko def mais ku ma ci bëgg jàppale da ngaa ñëw jàppale ma ci te dinaa ko def te naa di déclaration moom site yu bëri dañu ko jël incha allah rabbi loolu kay maay ñu ñu jàpp ci ku ma ci woo muy demee naa la wax ni muy dem parce que raison laa ko def incha allah rabbi ndax ñaan dañ koy booleel surmaman taw yi la te ñaan boobu écran boo xa dafa garaaw télé <laughs> ndax borom baat yi bari ñu may diglu mm-hmm. te am na ci ñaan yoo xam ne boo ko waxee écran borom baat yi mën nañu ko seen bopp. te am na ñoo xam ne ci la ñàggee ci yàlla. nga bëgg ko wax ci tey. <laughs> waaw dañ lay mere sax nag fi mu ne nii. waaw moo tax moo tax alhamdulilah kenn mu tax lépp. ma lay ndeysaan. te moom bett nga bett nga xam ne yow xam naa daal li nga nekk sama sama sama. damay sax taalibe rek damay sax taalibe rek <laughs> damay sax taalibe rek. alhamdulilah <laughs> alhamdulilah sant yàlla baax tubarkàlla jërëjëf si Cheikh Bara Niane macha allah lii de wax dëgg yàlla man mi ngi koy wax ni sax wax dëgg yàlla maa ngi am ci tolluwaay bu kawe bu ma toll boo xam ne wax dëgg yàlla xam naa ni Euh, wax nga tey loo xam ne du ma ni mosoo ko wax de waaye xam naa ne boo ko mosee wax tam benn benn yoon la ci daay daal tey jii moom xam naa ni moom am na secret yu génn yoo xam ne daal wax dëgg yàlla te te te jubluwoo ci dara dul réew mi am jàmm réew mi mucc ndax bu réew mi amee musiba itam ñun na mm. fi yàlla loolu bu nekk yee fi na wa tax ko fi natal naam si bane alésine du dina fitna d'abord mm. moo ne vidéo du dina fitna xam lu ngeen di mm-hmm. dëgg ko wax na làmmiñam ak loxoom ak ay cëram loolu la boromu jullitam ngeen kooku mooy jullit léegi nag ne na xool sa bopp moo xam yaa mhm. léegi li gën a garaaw moom kenn ku na xool loolu yéen di man ko def nga mu jullit. Mhm. kenn ku ne jël analyse boobu ba xam ne lu yéen di wax ne yaay jullit yaa ngi koy defoon defoo boo koy def ngeen ko gënoon boo ko deful nga ne ah kon man sama jullit des na naa gën a soppeeku. nit bu la ne bu la ne bu bu nee Macky Sall dafa bon. Mhm. Macky Sall loolu bu ko naqari xam nga bu ko naqari. Macky na xool boppam moom. bon na wala baax na hmm. bu dee bon na mu ne kon kat nit ñi ci ñoom moo ñoo ma dëkk hmm. kon nag bu ma metti bu dee bonul hmm. ne ndeysaan nit ñi kon dañoo wax ne kon am na président yoo xam ne dañoo bon kon man donte bëgguma kon naa fexe ba du ma jëma bon yàlla rek moo am kàttan <laughs> yàlla rek moo mën a xas nit yàlla rek moo mën a wàcce nit man de xam naa ne man personnellement. Mhm. li Macky Sall def fii Sénégal. waxaat mhm. nuyu tukki du bàyyi. wallaay de man Cheikh Bara Yane maa ko mhm. Sénégal ba nuyu tukki du fay. Macky Sall dañ fi inauguré. xam nga fi def baax. sëñ bi dañoo wax dëgg. man ànduma ak Sonko ànd naa moom Sall mais dama wax dëgg te yàlla an xaq mi rabbi ko man sa appelé man sa appelé président bu ko def Sénégal. réew ñor. kër gi ne bu nekk Macky Sall def na ko loo xam ne benn président def ko ko. Mm-hmm. muy Touba ak muy Kaolack ak muy Ndiassane ak muy beneen réew laayeen bi ak nangam-nangam fépp Macky Sall moo ko def lu la man mm-hmm. nit nag ñëpp. Mm-hmm. te ku mooy ñëpp. ndax moo ne walaay sa moo ko defoon. du may du may du def ñëpp ñu yem. déedéet parce ñëpp kenn ko ne da ngay xam sa morom. te ñëpp yemoon am na jël seen cër. allah kulli loolu kepp. macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Bara Niane ci waxtaan wu am solo bi waaye jërëjëf tam ci xam-xam bu mucc ayib bi nga xamante ni wax dëgg yàlla wisaare nga ko fi daanaka baaxee ko àdduna wërngal kaw ak li nga xamante ni mooy loolu nga xam ne ni wax dëgg yàlla wax nga ko léegi di ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ak message bi ngay lancé Ousmane Sonko ak message bi ngay lancé population Sénégal ndax nag defe naa ñoom ñëpp Sénégal la tax ñuy xeex te ñaar lañu te sénégalais yi ñoo ëpp ñoo leen ëpp ñoom ñaar kon kenn ku ci ne defe naa ni am na message bu mu war a mën a dégg boo xam ne war na ko war a mën a taxaat doonaat nit xam fi mu war a teg tàngam xam fi mu war a jëm. ñu ne message bi daal mooy. Mhm. réew moo yore fitna. loo mhm. doog sa kër. réew. kër. Mhm. ku fexe ba ko ci fitna. loo doog sa kër nga wax de. waaw. <laughs> gars yi dégguñu wolof bu baax nag. mooy am réew. Ah. am réew. ku ko jëlee ci tapale. jëlee ko ci rey nit. jëlee ko ci utiliser nit ñi. te li nga xam ne daal du boo koy jëlee. xamal fi ñu doon jëlee wallay ndeysaan waaw te Afrique saw jant gi de président yi ko fi defoon war na leen a yee. wala loolu maa rekk la mën ko tuuti mën ko mën tasaaw waxtaan sax mën ko mën tasaaw. yàlla nee moo di nguur. yàlla ko wax ci alxuraan de. wax nga tey loolu. Mm-hmm. yàlla mooy xool lu ko soog mu def ko ci doomu aadama. Mm-hmm. man damaa tubu sa toog. Mm-hmm. fële ca Nigeria. Mhm. dëkk bu naan Kaduna. Kaduna. ñu ngi baax njabootu Cheikh Ibrahima Niass ga fa nekk yëpp. exactement macha allah di seen seen nuyoo ba doomu Cheikh Ibrahima mhm. koor la woon ndeysaan muy taf seet fa alxuraan ndeysaan ñu koy nuyu ko mhm. ma ne ko Macky Sall de man soñoon mën naa toog réew mi ba ci kanam a dama la wax ni en deux mille quinze la. exact ma ne ko waaw parce que man dama su soñoon. Sénégal xam kan mooy Macky mais sénégalais bu Sonko soogoon tey tey tey. Mhm. suba gis ñu ko xeex. alors que loolu wér na moom. waaw wax ne dëgg. Mhm. dëkk yi gën a civilisé ci Afrique Sénégal boo ne doon trois te waxoo Sénégal. wallaahi la ah, dëkk yi gën a ci Afrique boo doon na trois te duddoo Sénégal. Paul Kagame kañ la toogoon Rwanda. wallaahi Don Sassou Nguesso. Congo. Ernest <laughs> Bai Koroma. bu saxalee woon ba mu wàcc temps la wàcc. Ellen Johnson bu Nigeria ñaata docteur moom. Idriss Déby avant mi am problème noonu ba problème noonu daa jaaral tawoon. ñoo xam nañu toog ay vingt ans ñi ñi am ñoom sax cinquante ans. cinquante ans quarante ans trente ans ñi ñi vingt ans. mais lu ci ëpp solo nañ liggéey réew mi. man liggéey réew ma ñor. man nag mënu ma. di wax damay yëg ci mooy lii may waaj a waajal saako wax naa wóorul ma ci kenn déggin la waaw ñi nga xamee ne am nañ yaakaar ne bëgg ni ma bëgg ñooñu soxla naa leen ci woote bi mais soxla moo woote moo xam ne nag fitna moo leen fitna réew mi moo leen ñor soxla moo loolu ku jàmm ñor rek mm-hmm. tàllal naa sama loxo ci woote ci loolu te secret bii mm-hmm. même bu ko président déggee. wala Ousmane Sonko dégg ko. wala kanam dégg ko wala xalifa yi dégg su ko ci woo danaa la wax secret bi ñëpp defandoo Sénégal yi. bu ñu ko defee di ñaaj ci yàlla yéen bi ak El maam la am lay ak mboolem ba ngi baax yi kéwéer yëpp ñàkk mm-hmm. mooy am. ay soins bu ñëpp see tëf élection jiitu na élection jiitu ñëpp tëf tëf. Hmm. mais yow waxee am na ko fàtte. du hmm. ko yore. moom kay <laughs> te mooy dëgg dëgg. waaw. ñun coronavirus bi mu fi ñëwee sama daara yëpp yëpp. ko fu <laughs> ma xanaa fa in ma tukallimu naa aydiihim wa ku nekk mën a sëccër waxal. Hmm. loxo waxal loxo bi commencé wax. gimiñ ñu ko man maa daan wax ci àdduna de ñu ne ko yàlla gimiñ gi ne ko loxo bi ne ko yàlla ku mu wax ko wax loxo bi maanaam làmmiñ bi yàlla ku mu wax loo ko wax loxo bi ne maa jëloon ngàndaay dem di xeex ji maa jëloon àll la jàmbur maa doon def nangam maa doon def nangam bët ne ko maa xooloon nangam. Mm-hmm. làmmiñ ak bët di xuloo. Mm-hmm. bët ko yàlla ko wax. yàlla réew mi am jàmm. amiin yàlla yàlla réew mi nekk ci jàmm. amiin yàlla ndax jàmm mooy lu mujj. Mm-hmm. jàmm mooy njëkk. ku amul jàmm. dootal dara te nag chef de la ndax wax ne. jàmm la ko laajee. wallaay ndeysaan muy doon bi waay muy seex yi ba nga xam ne jàmm daal dafa ci problème ci nga xam ne nekkoon ci jàmm mais nekk ci jàmm daa jafe na yàlla defal Ousmane Sonko jàmm amiin yàlla defal réew mi jàmm amiin yàlla defal Macky Sall jàmm ndax réew am jàmm wallaay ndeysaan bu Macky Sall amee jàmm population bépp am jàmm billaahi bu Sonko amee jàmm tamit ñëpp mm-hmm. dëkk dëkk fële mm-hmm. boo amee jàmm ñëpp am jàmm mm-hmm. parce que da nga ko koy continuer ab jullit la ngay jullit yéen leneen la wax ci jullit ak jullit. wallaahi ndeysaan. lu la leen di wax jullit ak jullit. wallaahi ndeysaan. alhamdulilah lay kàddu la la ko. wallaahi loolu kay leer na ñëpp jaar nañ ko. sama moromu jullit na yow. Mhm. nga koy xeex. sama moromu jullit na yow nga koy yàq. sama moromu jullit na yow nga koy def lu bon. Mhm. liggéeyante bi ak jabarante bi yooyu am na dinaa fi joxe secret yoo xam ne yu doy waar. xam naa dina bëri borom bàttin yoo xam ne danañ ma. <laughs> ci li ñuy jaaree mere ma <laughs> xam naa ne du kii mais yooyu dinaa ko xalaat. mooy wàllum réew mi moom réew mi moom yëpp bëgg a def moom. Hmm. dinaa war a ci élection yi. maa ngi ci tànn sama loxo xam ne. Hmm. autorité bi ko wax xool mu jàppandal ci man. Hmm. maa ngi la ci woo. incha allah naa def sama képp kaay kàttan nag. sama xalal ak raison bu ne. dëkk bu ne ak ña ma koy toogal ña ma ko xam ñu def ko fa ak guddi ajjuma lañ koy fa dañ koy def nag. guddi ajjuma waaw laa bëgg def ko. incha loo xam ndaw loo xam ne yàlla léeg mu yebal nit ci ay nit. waaw ma arsalnaaka illaa bilisaan min qawmihi jaamu yàlla bu xeeb la mais yàlla day yebal nit. ci nit ñi. dañ mm-hmm. bàyyi xel loolu ba tey mi nga jërëjëf macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Bara Niane ci waxtaan nga am ñaan yi nga xam ne fi ne na réew mi am jàmm waaye ko bëri leen lool macha allah rabbi di wax dëgg yàlla santaat la bu baax a baax gërëmaat la ñaanal daal bu baax suñu borom taxaw la loolu léegi guddal fan wi te gën a wéral cëri mbooleem yéene yi nga xam ne naalal nga ko réew mi naalal ko askan wi tam yàlla sama borom jàpp daal lépp ci dara ji Seydina Muhammad alayhi salaam barkeb mag ñi nañ ko waxee ndax mag ñi ñooy lépp te bu doon ak mag ne defe naa réew mi jag kon ngi ñaan bu baax a baax yéen itam sama borom taxawal a baax waaye baax a baax mbooleem internautes xamante ni ñoo ñuy teewlu ci jamono biñ toll nii di kenn ku ci ne nekk lay bëggam ak yéenam ak mébé itam suñu borom yi dul jeexal dara sañ lépp mën lépp am lépp yal na yàlla jàpp na loolu lépp ñëpp lépp ci dara yéen yàlla Muhammad jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci rendez-vous Serigne Cheikh Bara ñaan ak ñaan gi nga xam ne moom la war a def ngir réew mi am jàmm ñu fas yéene ko ànd ak moom kon ñoo ngi ciy woo képp koo xamante ni rek réew mi ñor na la mbaa nga bëgg jàmm wala nga bëgg tawféex ñu ngi la ciy woo ay numéro téléphone am ñi ngi daw ci suufu écran bi ku ko woo ko jot ngeen ñëw ànd bokkandoo moom loolu mooy borom xam-xam bi muy borom alal bi muy borom barke bi muy kum ci mën a doon message baa ngi noonu ñëpp a ko bokk ku bëgg réew mi daal yaa ngi ci biir ñaan boobu yal na yàlla may ñu fekke wat ko ci jàmm ak salaam incha allah rabbi taala jërë ngeen salaam